amuñu ñu ñuy wax tay fi pap nek xolam warna na sedd parce que grand yo gënoon gis ci presse bi gis nga len ñoo xamni nekatu ñu en activité ñew nañu tey bi ma gisee ro xey Mbodj gis Baba Diop sama xol dafa sedd gis l'ancien ministre Fatou Blondin ma xamni pap amna lu mu liggéey Sénégal et cette presse là c'est l'occasion pour que ñu delluwaat nekk ben kenn ku ñu laal ñëpp lañu laal té li duñu ñu la pression tant que Pape Alé génnul ci prison bi parce que cette liberté elle est fondamentale pour la démocratie sénégalaise mais franchement ñi sommes tous tey seddal nañu xol. lu mel nii dootul am Sénégal dunañ dem duñu dem ba 2022 ñuy jàpp journaliste ci loo xam ne teguñu ko ci dara La liberté de la presse dafa nekk loo xam ne dafa sacré kenn waru ko fooyee lii ñu dal nii yaakaaruñu woon ne Macky Sall en 2022 ak niñ ko xamé won 2012 and ak mom ci campagne ak élection yëpp yaakaaroon nañ né journaliste kenn du ko mos arrêter arrêté fii ci dëkk bi ci régime Macky Sall mais vraiment on est très déçu té li nous bëgg mu Sénégal parce que vraiment depuis pratiquement 20 ans ci même problème est continuer il faut arrêter journaliste yi arrêter liberté de la presse pas sacré journaliste d'investigation bu régime en place ce qui veut dire qu'il n'a pas fait son boulot il faut nous nous li pour mu nous dénoncer Si nous nit euh, ne nous def ne bu Nous dans un pays démocratique je suis vraiment désolé inscrire ces élections moy biñu ñu falee Macky Sall parce que suñu suñu génération la dañu mës am yakar si mom mais lii c'est une surprise té gëm naa ni le président rien n'est encore trop tard pour que mu dellu gannaaw ñu libérer Pape la vie continue parce que y a énormément de papes qui qui qui dorment en nous du mom rek y a énormément de papes Alé Niang dans cette presse sénégalaise mom mo fessone lamu mu doon def ñepp a def dañuy continuer di ka def inshallah allahu rabbi ba muy génn. bo duggé ci métier bi té jëlulo li nga xamni ni que ni mom moy risque bi nangu woo ko jël bàyyi nga dem def leneen journalisme dafa and ak métier dafa and ak risque parce que journalisme dafa laaj responsabilité d'abord la responsabilité est d'abord individuelle avant que muy nek une responsabilité collective donc ce que Pape a fait kenn ku nek suñu ñun nga ko def si ni wala si on est très très fier de lui si c'est à recommencer on va le recommencer jusqu'à ce qu'il sorte de prison parce que sa place nekul ci prison bi place Pape Alé nekul ci prison bi ñii ci pouvoir bi tay amna lu Pape def pour ñom ñu kon dañ ko war a delloo mais pas ñun dañ koy dugal en prison duñ ka nangul tay duñ ka nangul ëllëg